asalaamaaleykum uh, mbokki mbombo yi fii ci commune Notto Diobass maa ngi leen di indil nuyoo bu jóge ci président Macky Sall président de la République jógee ci sama naataango gouvernement yépp di ko awale ci seen loxo chef de village ci seen loxo maire Alioune Sarr ministre Alioune Sarr ak préfet sous ak gouverneur ak kilifa yi fi toog yépp di wax ne xam ngeen ne solo ñëw bi tey mooy daloo ndox mi nga xam ne moom lañ leen indil fii ci commune nooto jobaas dëkku Mbomboy bokk ci fukki dëkk ak ñeent yi nga xam ne ndox mi mi ngi fay walangaan tey loolu nag su fekkee ne def na fe ñëw na fi tey mooy pas-pas bi nga xam ne moom la président Macky sàll am pour fépp fuy dëkk ci senegal mu yóbbu fa ndox maa ngi wax ne démb rek la ñaaxaat gouvernement bi ne soxla yi ma am bi ci gën a ëpp solo mooy gouvernement bi def ba nga xam ne dëkku senegal bu nekk dana am courant dëkku senegal bu nekk dana am ndox léegi nag loolu Mbomboy firnde la fi yéen a wax ci seen làmmiñu bopp ne courant bi ñëw na fi ndox mi tey ñëwaat na fi ci loo xam ne lii mooy ndox mi ngeen doon xaar mu nekk qualité mu doy loolu nag li ko lal mooy li ñu bëgg àq ak yelleefu réewu kaw yi ñu jox leen ko bu njëkk ba lu bari ci alalu nguur gi daf daan dugg ci réewu taax yi président Macky Sall bi mu ñëwee mu ne ñetti at yi mu wër Sénégal balaa muy jël réew mi gis na réewu kaw yi ni ñu sonne ci ay yoon ni ñu sonnee ci courant ni ñu sonnee ci ndox ni ñu sonne ci leneen mu jël ay programme yu mag jagleel leen ko ci biir programme yooyu la wax gouvernement bi ne ko am na ay forage yoo leen def ci commune Notto Diobass muy fukki forage ak ñaar ñu fay jëlee ndox di ko indi dakaar jaaduwul forage yooyu ak tuyaux yi di romb ay dëkk yoo xam ne yi ñoom am nañu ay jafe-jafe ci ndox bi mu ko waxee gouvernement bi gouvernement bi wax ko SONES nga xam ne moo yore tabax lii mbirum ndox ci réew taax yi ne ko noo mën a def ndox moomu na nga ko yóbbu ci dëkk commune Notto Dioba si ko soxla liggéey boobu ñu liggéey ko ba mu sotti mu nekk liggéey boo xam ne bii dafa laajoon xarañte seen maire wax na leen ko sànq xam ngeen ne autoroute bu ñu defar ba pare pour di ko gasaat tuyau di fa aw loolu mënul a nekk mu nekk lu xarañe xarañ loo xam ne li ay machine yu ñuy awale ci suuf la ñu koy wax fonçage pour tuyau yi mën cee aw looloo tax ndox mi yegg si fii kon boog yéene moo ko indi pas-pas moo ko indi liggéey moo ko indi liñ leen di sant nag mooy que ne ndox mi ngeen yaxanal ko ndox mi ñu bañ koo yàq Aquatech mi nga xam ne moom lañ jox ndox mi su indee ay facture facture yi na ngeen ko fay parce que ndox moom ngeen di fay moo tax ëllëg su fekkee ne am na lu ci paan ñu mën koo defaraat loolu seen alal la soo leen ko sàmmee sàmm ngeen seen alal su ma ñëwee nag fii nekk ak sama naataangoo ci gouvernement bi Alioune Sarr mu nekk seen maire ngeen seede seede yu rafet yi ci moom ah dinaa leen seedeel ne tamit weetu leen ci loolu rafet ngeen koy xalaat ci moom ñun ñuy liggéey ci moom ci gouvernement bi loolu la ñu gis ci moom pas-pas liggéey pour réewam te liggéey pour réewam boobu jiitu la muy nekk ministre maa ngi wax ne yàlla boole nañu balaa ñu nekk ministre ñun ñaar loolu ëllëg taarix dana ko bind xëj na parce que ay waxu biir néeg la woon yoo xam ne dañ ko doon dox maag moom ak ay kilifa lépp rek ci defar Sénégal te loolu bokk na li jur tey jii alternance bi nga xam ne moom la ñu am 2012 maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. waaw euh, je voudrais tout d'abord au nom des populations de la commune Notto Diobass après avoir souhaité la bienvenue euh, monsieur Serigne Mbaye Thiam lui exprimer au nom des populations notre Diabas toute notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir euh, brillamment porté ce projet d'accès à l'eau potable ici dans la commune de Notto Diobass. Je voudrais également que Monsieur le ministre Mbaye Thiam soit notre interprète auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour euh, sa volonté exprimée plusieurs fois en Conseil des ministres de résoudre la question de l'eau dans la communauté Djabas, qu'il a transmis cette volonté à M. Serim et qu'il a exécuté avec brio à travers ses services, notamment la SONES. Cet investissement, comme l'a rappelé M. le ministre, règle la question de l'eau à une population estimée à plus de 35 000 personnes, puisque c'est près de 60% de la population qui est aujourd'hui concernée, impactée par cette euh, canalisation. Vous avez tous suivi il a la difficulté criarde d'accès à l'eau qui, était, qui existait ici dans la communauté Djabas. Donc cet investissement, pour nous, c'est un investissement majeur qui va transformer durablement non seulement la qualité de vie des populations, mais également va transformer simplement la commune. Et je voudrais encore une fois remercier le ministre pour cela, lui transmettre notre reconnaissance et lui dire merci, merci et merci. mbokk yi euh, sama kaddu kaddu cant la. gannaaw bi ñu dalalee monsieur le ministre Mbaye Thiam ak sa délégation ci turu askan Notto Diobass yëpp maa ngi koy gërëm di ko sant di ko yëbbante ngërëm ak cant à son excellence monsieur le président Macky Sall mi nga xam ne lu ëpp ñaari yoon ci conseil des ministres posé na la question de l'eau de Notto Diobass di ko gërëm également moom monsieur le ministre Mbaye caam ci tegtal yi mu jox ay services am particulièrement Euh, Charles Fall ma nga xam ne moo jiite SONES ñun ñu sonaloon ko lool fii ci Notto Diobass kon loolu bu amee tey ba lii sotti ñii nga xam ne ñoo ko saafara muy le ministre ak ay service am war nañ leen wax jërëjëf mais war nañ leen won waa Diobass également parce que dañu jàpp ne ña nga xam ne dagg bu mu muy wàllu ndox wàllu courant muy wàllu yoon bu yàlla dogalee ba ñu mën a teew ci kanam askan bi mën nañ leen wone mais ñun ak ñëpp jàng également ci ñoom parce que malheureusement dafa am jikko yoo xam ne dafa dañu xaw commencé tumaranke ci réew mi loolu waral vraiment maa koy gërëm di ko sant di wax ne investissement bi nga xam ne euh, gouvernement du Sénégal def na ko ànd ci ak service yi dina nekk lu am solo ci euh, dundinu askan wi ndax nee naa leen da 60 pour cent population rek lañ seen problème kon loolu euh, ngërëm lañ ciy wax sant lañ ciy wax di encore une fois di encourager di masawu population yi ci loolu lay daaneel sama kaddu ay at ngi nii ñu tumarank ci wàllu ndox te ku nekk xam na ndox coono gëm ci nekk euh, Serigne Mbaye Thiam bu fekkoon nekkul woon doomu Kër Madiabel xam lan mooy manqué ndox la mu doon xëj na liggéey bi du demee nii mais woote na ay réunion ci bureau plusieurs fois lu mat ñetti yoon woo conseil municipal Notto Diobass woo service Notto Diobass ci bureau mu woo ay service am yëpp jox leen ay instruction bi ci mujj rek mooy matul sax weer kon lii su amee tey moom am na taxawaay boo xam ne su ko taxul woon mën nañ toog xëy na fii at i at également du génn